naa eh, eh, danaa a tontu tuuti waaye du ma a tontu tontu bu yaatu ci loolu mhm. parce que sàmm jikko yi gannaaw ak kuréel la goo xam dafa taxaw mhm. am bureau am ñu ko ŋànk te yàlla dugalut ma bokk ci bureau bi mhm. bokkuma ci ñi ko ŋànk xam nga nag réew mi léeg-léeg day am yoo xam ne bu xewee dañuy gis ak nit ci kanam comme man yàlla daa dugal ma yëngatu ci wàllu communication wala dara jàpp naa ne réunion ànd sàmm jikko yi bu dee mas naa cee teew benn la wala ñaar waaye bi ñuy waajal programme bi Babacar Mbuub xam ma te itam bi ñu am ci bañ lu bañ lu bon yaatu ci réew mi pas-pas boobu laa am ak fu mu xewee nag fu mu xewee yow mi boo ko wootee woon bu subaa bu ma amee jot damay ñëw taxaw ànd cee yow lu ma man ma def ko ci mhm. ma bokk ci ñiñ santoon ab liggéey ma taxaw ma ne liggéey boobu ba mu jàlleeg léegi ma ci informé rek la ma ci xam laa ci am leen lu ne fa ma ci yem laa ci yem delluwaat ci sama daara delluwaat di sàmm li ma donn parce que dama jàpp ne loolu daa ànd ak jikko yu baax mhm. te ñi may sagoo yi ci àdduna itam looloo looloo leen jaraloon loon jàpp leen wëral leen àdduna bi fenn fu nekk ñu dem fa ndax bëgg dëgg mujj waaye ndax bëgg jàmm am ci penc mi mhm. léegi nag jamono jooju dafa tolloo ñu doon yóbbu projet de loi bi ci li ma ci mën a wax mhm. assemblée national doxale ci doxal goo xam ne doxale cuune la moo tax suñu assemblée bi eh, moom yàlla nañu yàlla tàqaleeg ñoom ci jàmm mhm. ba ba waaw yeneen député ñëw te te mbir yi sensé maa ngi koy wax tey ci suba. mais yeneen député yi ñëwagul mais xeex bi bëri na dafa daanaka daanaka loolu rek moo moo tax tey ci suba may wax ne eh, assemblée nationale dañoo waroon a dindi payoor gi maanaam tey ñu ne ab député dootu am salaire mhm. ab député li muy am rek mooy bu waree ñëw défendre askan wi waaw maanaam salaire beeg privilège yëpp rek moom daal li muy am mooy bu waree ñëw liggéey si ñu jox ko lu tolloog la muy transporté ñëw liggéey si waxal askan wi mm-hmm. parce que tey député yi salaire beeg indemnité yi ñu jox mm-hmm. xëy na am na njariñ parce que ab député daa war a wàcc ci terrain bi mm-hmm. ab député tey bu dee député m njaareem la war naa di wër tund woowu war nay dem ci xew yi war naa xam la fa xew war naa xam jafe-jafe askan wi ngir indil ko askan wi bu fekkee moom defut loolu ba noppi ñu koy jox loolu li ñu koy jox amalatuñu njariñ kon léegi ñoom bi ñu yóbboo seen procès de loi àggagut procédure bi matagut fa mu war a jaar jaaru fa ñu jaay leen doole jël sànni ci ñag ba wane na yéen da ngeen a li ngeen di xeex nii loi baa ngi fi woon président waxoon na ko ba noppi mais loi bi réglé na problème góor jigéen ko mais est-ce que criminalisation bi aussi dina ko rek léegi gis nañ fi criminaliser nañu euh, vol de bétail. waaw mais léegi ko bu ko mais ba léegi tey la sàcc si gën a. Euh, euh, xam nga bëri xam nga léegi criminaliser dana ko régler. waaw ak du ko regle mhm. loolu loolu débat la. Mhm. loolu débat la yooyu nga wax ne dañ koo criminaliser. Mhm. ala kulli xaal moo xam réglé na ko wala réglé wu ko. biñ ko criminaliser ña ko doon sàkku am nañ satisfaction ca loola. kuy sàcc itam dana la wóor ne vol de bétail mën nay am ba léegi mm-hmm. waaye bu la jàppee moom criminalisation bi mi ngi fi lu jëm ci wàllu yàmbaa ak li ci aju criminalisation bi mi ngi fi lu jëm ci viol criminalisation bi mi ngi fi mm-hmm. yooyu yëpp ay kuréel la taxaw di ko ñaxtu di ñu xëy criminaliser leen ko léegi bu fekkee président li muy wax ne loi bi mi ngi fi woon doguma la affaire góor jigéen dafa xaw a compliqué oustaz su fekkente ni euh, waxtaan yi ci war yëpp euh, dañ ko war a dañ ko war a amal parce que yomb yombul ndax mun loo gis nit muy dox nii rek mais nañ ko amal waxtaan wi soit yor na doxinu jigéen rek nga ne góor jigéen rek ñoom waxuñu wala jàpp ñoom waxuñu loolu wala nga gis jigéen wala nga gis góor yor euh, jigéen wala muy doxe doxinu jigéen rek nga jàpp ne góor jigéen la loolu si dafay compliqué yaakaaruma ne loi bi daf fi nekk mais du a dal ci kaw man man yaakaaruma ne loolu noonu ñoom sóoraale wuñ ko ci bi ñuy def loi bee mhm. yooyu donte man nag gisuma loi xawma lu ci nekk ah. mhm. man daal li ma li ma xam te di ko wax mooy xam ne ak ngóor jigéen baaxut na ko man mhm. Eh, ko coow ak bari ko baril ci réew mi ma bokk ci ñi jóg naan bu mu fi am waaye tey boo ma joxoon aw yat ne ma wëral góor jigéen nga dóor ko jox nañ la ci ndigal yaakaar naa damay yendoo wër ba ngoon jot ñëw delloo si la yat bi waaye gisuma ak góor jigéen gu ma xam ne kii ak góor jigéen la waaye ñàkk koo gis tëgtalewut ne dama naan amut damay gis ne loo xam ne la yaatu na ci àdduna bi ci niñ ko waxee gis naa ko bitim réew fu mel ne Amérique gis mhm. naa fa góor jigéen ñaar ñu ànd dox sama xarit bi ma àndal ne ma eh, ñaar ñi loo yaakaar ma ne ko xanaa comme ni ma àndee yow mu ne ma ñaar ñi kenn ki mooy jabar ji kenn ki mooy jëkkër ji fi ma koy bëgg a ñu tàmbulee def li jëkkër ak jabar di séq euh, c'est-à-dire nga xam ne kon am na euh, ay ay ay ay fait réel la yu am ci àdduna bi am ñu koy xeex di ko taxaw gis nga président de la république mm-hmm. bi mu toogee ak imaam yi mu toogaloon les imams et les ulama yooyu mu toogaloon wax ak ñoom uh-huh. waxam ju am solo jooju mu wax ci seen kanam bu yàlla dogaloon mu bañ a toog ak ñooñu wala mu toog ak boole ci waa ànd sàmm jikko yi boole ci kuréel yi ko séq boole ci ñenn ci député yi. boole ci ñi nga xam ne xeex bi engagé na leen ne leen lu ngeen bëgg. loi bee ngi fi. koy wax ci réew mi lañ bokk yow yaay président de la république am nañ àqu nga déglu leen. mais ñu bëri dañuy dafa am ay politiciens yu nekk seen ginnaaw surtout opposition bi ci local yi bëgg jaxase xelu askan bi daanaka ci ci élection yi. sax non loolu moom député ya fa nekk ñoo maanaam député ya nekk assemblée. ñoo indi loolu. parce que ñoom ñoo ñoo jël loi ba sànni ca ñax ba daanaka local yi sax moo tax saf na sàpp ci Macky Sall ñu bëri voté luñ. waaw a tamit bu safee sàpp man mooy mooy élection député législative waaw yi bu safaatoon sàpp nam safee woon <laughs> man moom du ma naqari waaw parce que député ya fa nekk bëgguma leen faa fekkaat député yi nga xam ne am les mêmes députés parce que waaw xam nga li xew benn bokk yaakaar rek ay signal la yoo xam ne si ni ay signal yu fort la parce que demagu leen sax ci affaire investiture ku nekk ñu tajante bokk di xeex mais ma fu léegi demagu leen ñan ñooy dem léegi man damaa <laughs> pas yow pas yow waxuma yow mais ñi nga xam ci ñoom ñoo nekk ci liste opposition bi ñi ngi rayante ñi ngi toyante bopp ñi ngi tamante dem ah, ñi ci APR it ña ngay rayante non non APR sax moo xaw a parce que bu la falul député mën na la fal leneen ah. mais opposition bi amul loolu soit da nekk député soit nga doo nekk député doo nekk leneen léegi eh, eh, problème bi est-ce que mënuñu am les mêmes députés à l'Assemblée nationale ci loolu loolu la a jeex uh-huh. ñun dañoo wallaay dañoo war a gëm ne dana baax. Mhm. léegi nag ñu xam nag bu ñu folli ku ñu fal. gis nga président Macky Sall mii. Mhm. biñ fi folli Ablaye Wade di ko fal buñ tànnoon bu baax a baax. am na lu bari lu ñu xaar ci moom duñ ko xaar ci moom jàmbaar la nag. mais moo tax moo tax may wax ne dañoo war a jógee ci loolu. Mhm. gis nga élection locale yi jàll. am na maire yu fal ci ay gox yoo xam ne bu doon ne dañoo tànn bu baax kenn du leen fal. ndax ku nekk xam na ne ñañ follee leen fa gën. ñeñ follee leen fa gën fuuf waaye dañoo dugg ci benn saako bu ñu doon sànni ñu sànni ji waale leen am na maire yoo xam ne jàmbaar lañ mais ñoo dem toog ca poubelle ba mhm. fañ toog comme poubelle la daa jëm bëbës ñoom it dañuy dem bëbës comme ñëpp rek waaw waaw waa benn bokk yaakaar am na maire yoo xam ne yàlla xam na ne bu leen président woowoon tey di leen yedd ñoom président lañ war a yedd dañoo war a wax APR ak benn bokk yaakaar ne leen yéen yéen ñu xañ suñu maire yi seen bopp fas bi ñëwoon ci watekaay ba mm. moo tax ñun demuñu yoraatuñ waaye jàmbaar lañ askan wi ñooy toll foo xamante ne nii dañuy jekki-jekki rek aw askan nag daa yàgg mel noonu. Mhm. dañuy jékki-jékki doyal ci am mbir ba dañuy folli jàpp naa ne li amoon ci local yi mën naa bañ am ci euh, donc ci législatif yi parce que local yi dañ doon folli waaye falu ñu mhm. ñenn ñi dañ doon boole folleek fal. léegi nag ki nga fal nag bu bu baaxut mën naa am mu tane ki nga folli parce que bon moo am.